mbedd mi parce que loolu yonent bi moo ko wax rawatina nag ñu nekk ci weeru koor sang bi maa ngi lay nuyu. waaw guy gi maa lay nuyu. Mhm. di lay ziar am kontaan bu baax. Mhm. tey wax euh, xaaral inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mhm. ndaxte wax ne ab jullit moom saa bu amee bànneex. nay nay dellu ci yàlla. même bu na amee naqa tamit nay dellu ci yàlla. parce que dañoo wax ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. bu bànneex amee ñëpp a koy bokk waaye bu naqar amee tamit. ñëpp koy bokk. Mhm. kon nag loolu bu amee dañuy ñaan suñu borom li nga xamee ne moo am. Mhm. mooy suñu suñu mbokk jullit boobu nga xamee ne dafa dafa génn àdduna. Mhm. di ko ñaan yàlla fa mu jëmal fa mu jëm gënal ko fi mu jugee. te te di ñaan mboolem ko ko fa fekk tamit. ak ña ko fa fekk. dañuy wax ne. kul kullu nafsin saayaxatin mawti bakkan bu mas dund dina mas dee des fois lu ëpp ci nit ñi nag. Mhm. dem nañ ba nga xamee ne dee booluñ ko seen programme. te pourtant nag lu e-, existe la. Mhm. maanaam lu am la moo tax saa su ne nit ki di bàyyi xel. Mhm. suba ne est-ce que suba dinaa dund wala duma dund. moo moo gën nit ñi nekk di wax naka su noonu. kon nag loolu dañ ciy ñaan suñu borom. képp koo xamee ne yaa ngi jaar ci beneen yoon. yàlla suñu borom euh, walbati la. ba yéene ji nga am ci lu baax. suñu borom àggale ko. parce que dañuy wax ne nit ki mën naa yéene dara. Mm-hmm. te du àgg. nit mën ngaa bëgg a def dara. Mm-hmm. te doo ko mën. kon nag boo boo boo yéenee ba def. Mm-hmm. da koy sant yàlla te xam ne. dogalu suñu borom la. Mhm. kon nag loolu laa lay delloo kàddu yi di la mhm. di la sant bu baax a baax. Mhm. te moom da ngay da ngay sama waay. non sama waay nga. Ah. d'accord sëñ bi yaa ma dugal nag ci dee bi ah, damaa bëggoon a ñëw ba ci kanam mais. Euh, ñu gis ni à ah, souvent. Euh, décès décès bu amee. day bëri ay polémique ñi naan dañ ko sacrifier ñi naan moo nekkoon sarax bi. ndax loolu tey jii dox na ci diggante dee gi nga xam ne dafa am ak ci ki nga xam ne moo war a dee. waaw waaw xam nga Sénégal moom <laughs> yàlla dafa def loo xamee ne. lépp lu ma lépp lu xew rek faaw ñu am ay ay ku nekk ak na nga koy gisee. Mhm. ndaxte dañu wax ni euh, nit ñi bu ñu bu ñëpp bu bokkoon. Mhm. am ñu gedd seen cër. loolu olof Ndiaye ko wax. Mhm. moo tax d'habitude lu mel nii bu amee faaw faaw maanaam. Euh, faaw nit ki ku si nekk ak na nga koy gisee. ak na koy waxee. waaye gis nga bu dee moom bu ñëwee ñëw na xëy na nag am na lu ko sabab. waaye ilaa mu nekk ci feebar bi mu feebaroon waaye ilaa ñu sacrifié ko. waaye ilaa leneen ak leneen. Mhm. waaye nag lépp lu am rek am na lu ko waral. Mhm. kon nag li li nga xamee ne waral na ko moo xam muy dogalu suñu borom. Mhm. ah ñi gis ne aw fanam dafa jeexoon. ah dañ koy sant yàlla. bu fekkee nag ah leneen da cee nekk. dañuy li ma li ñuy ñaan mooy yàlla suñ borom leeral lépp parce que àdduna bi lu tëw te xam dafa yàggul. kon nag loolu moo tax dab bu dara amee rek faw noo mën a def nga dégg ay version yenn saa yi nga dégg sëriñ bi naan waxoon naa ni nit dina faatu. Eh, waxoon naa politicien dina faatu. waxoon naa waxoon naa kilifa diine dina faatu. yooyu amul sens. gis nga li am sens mooy nga fexe ba xam bis bi ngay faatu. loolu moom solo boo ko defee nga man koo waajal. waaye diw dina faatu yooyu amul amul amul sens. dañ koo sacrifier dañ ko yooyu amul sens. parce que li gën a am solo mooy fexeel ba nan nga mën a def ba sa àdduna jag nan nga mën a def ba mujj am mujj bu rafet kon nag loolu moo nekkoon li nga xamee mooy suñu xalaat daal ci mbir mi. d'accord dañ bi ñu nekk ci weeru koor ñu gis tey vraiment nga jël ay ndogu di ko distribuer euh, donte l'islam moo ko wax. Mhm. mais rawatina nag ñi nga xamante ni tey dañoo ne ci liggéey di liggéey. Ah. heure ndogu di leen fekk ci mbedd mi. Mhm. geste bu noble bi nga def tey. waaw guy gi waaw ah, man képp ku ma xam rek. Mhm. Eh, xamee ma man man même bu dul dara sax. donte yàlla moom may suturaal waaye maam joxe joxe ñam. dama ko bëgg. bu ma bu ma fàttalikoo ba may ba may ba may jàng laa ko daan def sakkandu maa léegi ji nga xamee ni. yàlla suñu borom am na lu ma dénk. du ma du ma namm nag. moo tax bi ma gisee parce que li tax ma def ko damaa xool ne euh, nit ki bu wooree ba ngoon. Euh, mu woor ba ngoon di ñibbi fu sori nekk ci yoon bi. Euh, ma gis ne pourquoi mu li ma yàlla suñu borom dénk ma génn ci li nga xamee ne man nga ko nokkee ma joxe ko te te li tax ma def ko des fois nit ki dina nekk ci ay njaqare des fois dina am nit dina woor ba ngoon du am lu mu dogoo nit dina dina dina woor ba ngoon waaye teewul mu am lu mu dogoo mhm. mais ndog da koy fekk ci yoon bi mhm. waaye li tax ñu def ko encore tamit maanaam gis nañ ni euh, tiyaaba bi ji ci nekk mhm. ndax dañu wax ne jox nit ki jox nit ki mu mu lekk rek. Mhm. loolu bu la suñu borom fayee daanaka xamoo nu muy toll. waaye nag lépp dañ koy def ci ci dañuy dañ koy defee ak ak eh, ngir yàlla te yàlla tax. Mhm. looloo tax ñu koy ñu koy ñu faral di ko def du c'est la première fois nag ñu def ko. Mhm. daanaka sag wee sag koor bu jotee. sag àjjuma dañ koy def. waaw moo tax daanaka loolu daal. moom depuis ba ñuy nekk xale nag laa wax. Mhm. lañ ko daan def sakkatuma léegi. Mhm. waaw moo tax euh, euh, maam njëriñ daal laa gis. Mhm. waaw te xam naa ne moom saa bu ma ko defee. ma xëyee suba naa am ay millions. ndeysaan waaw loolu moom leeram moo tax may sàkku may sàkku képp koo man waaw surtout di di di di joxe. surtout ngay joxe ñam. lépp loo joxe yàlla ko joxat la ak lépp lu mën a doon. parce que Dakar dafa xat da ngay xool ndogu day jot nit ñi mu fekk leen ci embouteillage. ci embouteillage surtout loolu. des fois nga gis ay nit ñoo xam dañuy wóor ba ngoon mais duñu am lu jogoo. ñoo tax may wax. di gis nit wàcc ci am déage bi noonu kasaalika mhm. nga fexe ba jox même boo ko joxee ab tàndar ba sax baax na mhm. waaw parce que man xam naa njëriñ li mhm. moo tax daanaka daal wax dëgg yàlla may ñaan yàlla suñu borom may ñu tal ak fekki ba ba ñu yàgg ko def di ko di sant nag ñi nga xamee ne maa ngi koy ànd ak ñoom muy depuis depuis yàgg na depuis boobu ba léegi mooy ñi ma nekkal euh, di leen ci sant parce que bu li na lépp ñoom la parce que man kese personne mënuma mënuma def dara bu liggéey bi jotee ñoo ciy jàpp ba ba mën a jaaree comme ni ñu ko defee nii waaw di ci sant nag di leen di leen ci sant bu baax a baax. Mhm. kon nag ñu gis ne loolu moo nekkoon loo xamee ni. Mhm. Euh, bëgg-bëgg la bu nekk suñu xol. Mhm. maam joxe ñam moom dañ koy yàgg bëgg. waaye defuñu ci dara ngisal. li tax ñu koy def mooy dañoo bëgg nit ki ah tiyaaba ji suñu borom di joxe. ñu mën ci am. waaw rawatina ci weeru koor. waaw kon nag loolu moo nekkoon. Euh, suñu xalaat daal ci ci koor gi. d'accord am na solo. Mhm. sëñ bi nga bokkoon ci ñi nga xamante à chaque fois da ngeen doon taxaw. Mhm. di euh, xeexal seen dëkk ci seen kaddu. di xeexal seen dëkk parce que dañu doon gis même ba ci équipe nationale sax. Uh-huh. buy football di nga génnee xam-xam génnee sa alal def ay sarax. Mhm. rawatina nag ñu nekkoon ci période boo xamante ni na lool. ñu bari ñeme woon woon ñu wax mais dañu doon gis à chaque fois nga doon jël ay engagement. di wax li nga xam ne askan moom la ñu dund. di wax te mënoo wax benn kaddu te ñaari kaddu. te néewoo ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko. Euh, tey gisee ndam li. Mhm. ak ni mu demee. Mhm. ban yëg-yëg nga am. waaw ah, xanaa xanaa kontaan. Mhm. parce que dañuy wax ne dañoo dañoo dañoo nekkoon ci ci xeex bu metti xeex boo xamee ne buñ sañoon. Euh, ba bëgg yaa bëgg yàggoon nañoo bëgg mu changé. waaye tey muy lan muy xeex boo xamee ne bëggoon a gis beneen Sénégal bëggoon a gis beneen beneen kanam muy lan muy muy jeunesse bi ñu ci bëri am liggéey. ñu ci bari bu ñu feebaree mën a faju mm-hmm. comme ni ko ni ko yeneen dëkk yi di defee mm-hmm. nga xam ne dañuy dem seen hôpital yi sax da ngay faju dangay ngay feebar dem faju te doo fay dara mm-hmm. loolu bëgg nañ ko ci Sénégal bëgg nañ tamit ah, ñu nekk ci jàmm parce que dañuy wax ne ah, ab am réew bu amul démocratie daanaka réew ma du du dox bokk na ci nag loolu bokk na ci ñu doon xeex te xeex bi damay wax ne même ñi fi nekk nii buñ jaaroon ca ñoon yoon wa ñi fi ñëkkoon a nekk jaar teew la ñu kon ne di xeex bu ñu nag ba gis loo xamee ne dal na suñu xel ñu teewul ñu ànd ak ñoom ci loolu parce que ñoo xam ne euh, lu ñëpp bokk maanaam waroo ñëw rek jël sa wàll déedéet da ngay xam ne lii yéen ñëpp ko bokk nan ngeen mën a def ba loolu loolu jag ci loolu lañ nekk moo tax daanaka saa sune ba ci boo xoolee équipe nationale ak lépp loo xamee ne sama réew soxla na ko parce que euh, maanaam dañoo wax ne xubul iman xubul iman min xubul watane min iman maanaam bëgg sa réew bokk na ci gëm yàlla iman te dañuy wax ne jullit bi euh, ak ngëmam mënut a lu dul dafa dafa dafa dafa am iman mhm. muy gëm yàlla mhm. kon nag loolu foofu la ñuy doxee moo tax saa bu loolu amee rek yeneen def suñu suñu suñu sacrifice ba génne suñu alal di ko ci def mhm. te duñ ci déglu kenn kon nag loolu moo waral suñu taxawaay bi di di di di ñaanal ki nga xamee ne moo fi nekk euh, yan yan bi yan bi oyof parce que Sénégal du du jaaxaan maanaam euh, wax ji day bëri. kenn ku nekk ak sa version. ba ci ba ci ñàkk taxawal euh, gouvernance bii sax. Mhm. am na ay version yu bëri yuñ ci wax. Mhm. waaye loolu nañ xam ne Sénégal mooy doxee noonu. Mhm. mais dañoo wax ne nit ki bu dee liggéey liggéeyal. bul bul bul déglu ma Samba bul déglu ma Demba. bu fekkee da ngay déglu nag. yow ak ñiy wax yéen a yem. kon nag loolu bu amee la gën mooy ah di ko ñaanal yàlla suñu borom yéen bi oyof. ba yéen a jëm am sénégalais ci lañ koy xaar. yàlla suñu borom defal ko mm-hmm. parce que nii nii sénégalais sénégalais ñu ngi koy xaar ci lépp mm-hmm. ci ci ci ñàkkum xëy mi mm-hmm. ci dund gi ci hôpital yi lépp ñu ngi koy xaar Mm-hmm. kon nag loolu bu amee lañ mën a def mooy ñaanal ko yàlla wa yan bi oyof mm-hmm. ba yéene yañ amoon suñu borom àggale ko mm-hmm. kon nag loolu moo nekkoon suñu taxawaay ci ci réew mi waaw am na solo naka nga gisee déclaration parce que ci kàddu yi mu ngi doon wax naan nga xamante ni dañoo lubaloon alalu réew mi ku la toppaat li nga xamante ni moo di of nag lépp loo xam ne liggéey bu war la aussi tamit dinañ fas yéene taxawlaat loolu bu mel ni sénégalais lépp lu lëndëmoon seen xel dina leeraat ñu bari samp laaj daat ni ndax nekkul dafa bëgg a toppaat ñi di fayantoog ñoom ban jàngat nga am ci loolu waaw jàngat ma ci am mooy dëgg la parce que euh, li gën a am solo mooy sénégalais yi xëy na ñu ci bëree bëri ñu ngi wax naan ñuy luubal xaalis bu bëri na. am réew boo ci nekkee te te te réew mi tegul ci yoon. da ngay fexe ba réew mi tegu ci yoon. nan ngay tegee ci yoon nag mooy ñi nga xamee ne dañoo dañoo luubal nga teg leen ci yoon. Mm-hmm. parce que loolu la loolu la yàlla digal. Mm-hmm. li bon mooy nag ngay bay bayal loo xamee ne ëllëg mën naa jur fitna. Mm-hmm. man ànd dama ànd ci ci ñi nga xamee ne ñu ngi leen di tuumaal ci loolu ñu fexe ba lépp leer. Mm-hmm. man personnel dama man bu doon man damay nu mu gën a gaawee bala maam bu élection yi jàllee. Mm-hmm. ba ma ba ma toog président euh, aéroport yëpp laay bloqué. Mm-hmm. kenn du gé waaw man bu doon man personnel noonu lay def. kenn du génn. kenn kenn du dem fenn bañ leeral li ñu war a leeral ba pare. buñ ko defee ba pare nag. ku mën a génn nga génn ku mën a dem foo mën a bokk baax na mais l'essentiel ne li nga xamee ni sénégalais ko moom moom dafa war a leer kon nag man bu doon ba mu leer na nag du a def rawatina nga nekk nga nekk njiitu réew a def ko def ci benn fan waaw kon nag man bu doon man personnel damay day fexe ba mu leer waaw naka nga gisee Ousmane Sonko bi mu jël def ko premier ministre waaw euh, am na ñu ni baax na am na ñu ni baaxul parce que Sénégal comme loolu ma la wax boo dara amee moom faaw ñii ni baax na ñuy baaxul mais li li gën a am solo mooy man discours am bi bi bi bi bi biñ ko falee premier ministre discours bi bi ma dégg ci moom rek da sama xel dal moo tax moo xoo ci benn vidéo ne leen képp koo xamee ne nga nekk Europe boo mënee ñibbisi nga ñibbisi te xam ne Sénégal dina neex ah. waaw loolu moom personnel man maa leen rassuré loolu parce que discours bi ma dégg mu wax ko xam naa ni ñi nekkoon États-Unis wala ñu nekk Europe. te amuñum xëy di liggéey buñ mënee dagg bee nañ dagg bee ñibbi te xam ne dinañ am liggéey te lañ mënoon a am ci Europe mën nañ ko am Sénégal. Hmm. loolu man maa leen ko wax. Hmm. parce que ndax lan xam naa nit ki xam naa yitteem xam naa bëggam xam naa ak jubam looloo tax ma ma wax ko hmm. la yàlla def nag suba yàlla da ko xam. waaye nii nii bu ñu bu bu bu bu yàlla bu ñu yàlla dimbalee. xam naa ni léegi balaa deux ans rek wàllum ñàkkum xëy moom dina fi waaw ñoo ko xëy moom dina fi jeex kon nag ci loolu laa ci loolu laa sukkandiku ba tax na man yaa ah, képp ku mën a ñibbisi na ñibbisi mm-hmm. waaw bu ko defee yàlla mën nañu ja am na solo xam naa jël naa sa temps nag may jeexale mooy lan la ñu mën a xaar ci ñoom période bi parce que mm-hmm. ku ne gis na Sénégal li nga xamante ni noonu la doon doxee métti woon lool mm-hmm. mais jamono ji li nga wax ndaw ñu bari daanaka seen xel dal na lan la ñu a xaar ci ñoom mooy dund gi nan nan lañ mën a def ba dund gi yomb bu dee mm, saaku ceeb seer na diw bi seer na te nit ki Sénégal la ñu baax la ñu baaxoo def mooy bu bu bu boo xëyee suba da nga lekk ceeb. Mm-hmm. loolu nan lañ mën a def ba loolu wàññeeku dund bi kasaalika nan lañ mën a def ba waaye ba mu wàññeeku. Mm-hmm. ba nga xamee ne sénégalais yi nga xamee ne ñu ngi biir Sénégal di yor seenu njaboot di leen dundal di leen ci mën a gis seen bopp. Mm-hmm. d' abord loolu la ñu war a mën a ñëkk def beneen bi ci topp ñu mën a nan lañ mën a def ba jeunesse bi am liggéey parce que dañuy wax ne am ki toog ci internet di di wax. di wax naka su noonu ñàkk liggéey moo war a lool. ki nekk ci mbedd mi. di xeex wala di reyante wala muy agressé. ñàkk liggéey moo war a loolu. kon nag bu liggéey amee yooyu yëpp yàlla suñu borom mën nañoo dimbali. ñaar yooyu bokk na ci li gën a yitteel loolu moom dama koy ñaan yàlla. man ma naka bi que keroog 4 avril bi franchement gis na parce que keroog gis nañ mu ñëw def. ñaari garaam bu boom. franchement. waaw loolu day tey maam gis nga à yàlla suñu borom chaque jour daf ñuy jàngal boppam. dañuy wax ne doomu aadama. Euh, maanaam comme koo xamee ne boo faatoo ci biir suuf nga jëm. Mm-hmm. war ngaa mën a wàcc sa bopp. Mm-hmm. loolu nag dama ko jàngal ci moom. Mm-hmm. mu ko nekkul nit koo xamee nit ku rëy la. nekkul nit koo xamee nit ku mën a yëkkati boppam la déedéet. gis nga nit ki des fois da nga bëgg a bopp te yàlla wàcce la. loolu moo bëri si su ñi ñii nga ñii nga xamee dañu la wax ne ñooy suñuy kilifa. bëri na ci ay nit ñoo xamee ne. maanaam lañuy ñuy jëf la ñuy jëf buñ la ko waxee dañ leen di xeeb. loolu mooy bëgg a yëkkati sa bopp gis nga nit ki maanaam nit mënoo yëkkati sa bopp sax lu dul yàlla daf laa yëkkati. dëgg la mën ngaa am ay mën ngaa mën ngaa am ay moyens maanaam woo xaalis lu la neex nga def ci loolu dëgg la waaye moom daf ñoo jàngal ne a ah, adduna bi adduna bi même bu la yàlla dénkee Sénégal. Mm-hmm. war nga mën a wàcc sa bopp. Mm-hmm. moo xam ci ci ci ci waxin moo xam ci ci solin mm-hmm. moo xam ci jëfin. kon nag loolu gis nañ ko ci mu loolu man dama ciy sant yàlla. parce que ñu bëree bëri ñuy wax ne ah ku ñu yar la. te dañoo xam ne ab yar dafa am solo ci ab julit mhm. rawatina ab euh, koo xamee ne ñëpp am ci yow yaakaar muy Sénégal mhm. kon nag loolu wax dëgg yàlla gis-gis boobu lañ ci am mhm. waaw ay ci am na solo sëñ bi man dama ne woon damay ñëw ndogu si rek waaye mën da ñàkk tamit comme léegi daanaka li génn li ngay génn bëreetul moo tax yu mel nii mën da ñàkk aussi tamit ñu laajaale la ci maa ngi lay jaajëfal bu baax baax di la bàyyi nga tàggatoo soppe yi rek li may tàggatoo di sant yàlla. Mhm. di jëli jërënd bi. Mhm. di di ñaan yàlla mboolem jaamu yàlla buñ def ci koor gi. Mhm. tey jii mooy ajuma bi mujj ci koor gi. kon dañ ciy ñaan yàlla suñ borom defal ñu eh, ak nangu. Eh, mooy liñ jaamu yàlla ci ci ci ci avant koor bi même bu dul koor gi sax. parce que ñu bëri yaakaar nañ ni koor rek lañ mën a jaamu yàlla déedéet. yeneen jours yaa ngi fi kon nag loolu bu amee. day ñaan yàlla lépp luñ ci jaamu yàlla suñu borom nangu ko di leen sant di leen këram mhm. di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal ak dégg ak topp ak jëriñu waa axiru daxaanaa ni alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf I mean